salaatu وفي كل شهر زين لبهي وفي سفر coordonnateur UCG directeur général de la SONAGED SA euh, solo ñëw bi ñu fi ñëw tey mooy euh, ñëw bokk ci liggéeyub sëñ Touba bi dañuy tàmbali sant yàlla julli ci yonant bi sant maam borom Touba ni mu ñu boolee ci liggéey bi ndax solo bi mooy loolu ñu am opportunité la pour ñun pour bokk ci liggéey bi ñu jot ci nag ndigal ndigalu président de la république monsieur Macky Sall mu jaarale ko ci suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow mi nga xam ni moom waroon na fi teew tey ngir jëmmal délégation bi mais dafa am ay contraintes moo tax ñëwul mu ndigal ñu daal ni ñu lépp loo xam ni sëñ Touba sëñ Mountakha mi fi toogal sëñ Touba itteeloo na ko ci wàllu propreté na ngeen ko def moo tax ñu gàttandu ñëw jaar ci suñu bunt sëñ Abdou Latif. Cheikh Cheikh sëñ Cheikh Mbacké Abdou Latif ñëw jaar ci moom. niñ ko baaxoo di def moo tax ñu ngi koy sant bu baax ci ouverture bi mu am ci ñun ak jàppale bi mu ñu jàppale fii ci Touba. ñu góorgóorlu nag ba euh, mobiliser nañu ñeent fukki oto yu mag mu waxee auto yu mag nag mooy ay pelle mécanique ay benn tasseuses matériel lourd boo xam ne nañ ko mën a comité d'organisation bi dañ koy teg ci loxoom ngir ñu mën ko yóbbu ci quartier yi pour mu mën a jàppale nit ñi ci wàllu propreté bu loolu weesoo aussi mobiliser nañu 3500 unités yoo xam ne ay matériel de nettoiement la lu demee ne ay pelle ay bale ak ay brouette ndax loolu am na solo ndax Touba gis nañ ñi bu weesoo UCG population yi ci seen bopp ñooy jug di bale di nettoyer dëkkoo dëkkee ci loolu donc bu ñu leen jàppalee dina gën yombal liggéey beneen bi mooy aussi wut nañu ay gants ak ay masques ngir mën a dimbali pèlerins yi ñu toll ci 12000 unités ak aussi personnel personel bi incha allah dinañu mobiliser euh, ñetti téeméeri nit ñetti ñeenti téeméer sax 400 xale yoo xam ni dans le cadre du programme xëyu ndaw yi dañ leen indi fii ci Touba ngir ñu mën a commencer liggéey ci nettoiement bi dinañu seet sax luñ ci mën a dolli ndax sëñ bi wax na ma ko léegi na ma daal emploi jeunes yi am na am na solo dool fii ndax bu fekkee xale yi dañu ñoom jël spontanément di dugg ci nettoiement war nañ leen góorgóorlu war nañ leen dimbali ngir ñu yokk aussi quota d'emploi boobu mu ma ko doon wax léegi loolu tam nañ ci bàyyi xel ngir mën a yaat a yaatal programme xëyu ndaw yi fii ci Euh, ñu jeexal ak euh, nawet bi nga xam ne ci ngeen fas yéene liggéey mu doon xëy na gàllankoor naka ngeen ci nar a waaw loolu tàmm nañ ko ndax euh, boo seetloo mbirum mbalit mbalit dafa lëkkaloo daal ak mbirum ndox ak mbirum inondation soo seetloo am na gox yu mel ni dakaar sax xëy na fa la gënee tar ndax nit ñi dañuy jaxase mbalit yeeg ndox yi dugal ko ci kanu yi te loolu ñu ngi ciy def ay jéego àndandoo ak suñu naatangoo directeur général ONAS. dañu am benn convention boo xam ni may nañu ñu booleendoo suñuy moyens ngir mën a avancer lu donc s'agissant de Touba aussi noonu lañ koy defee rek delloo buum ca mboy mboy ga maanaam lépp loo xam ni laaj na ko jot nañ ci ndigal pour ñu wut ay moyen pour quartier yi nga xam ni mu mënuñu fa accéder ndax euh, problème d'inondation ñu góorgóorlu ci ngir ubbi yoon yi ba liggéey bi mën a mucc ay waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi fay nuyoo monsieur Mass Thiam sama gan gi sama xarit bu yàgg di ko fay nuyoo nuyoo bu jóge ci Cheikh Mamadou Mountakha ni sëriñ Touba di borom liggéey bi nuyoo boobu jaar ci Cheikh Bassirou Abdou Khadir muy sunu kilifa mooy président comité d'organisation bi sun commission sous commission bi na ci biir comité bi Serigne Bass di suñu jawriñ di suñu kilifa ci liggéey bi seen nuyoo la ñuy boole ñi ma bokkal liggéey bi yëpp ak bokki taalibe bi yëpp ñu teg ko ci loxol Serigne Mass màggaleel ñu ko ci ministre ba Abdoulaye Sow monsieur Abdoulaye Sow jàllale ñu ko ci président monsieur Macky Sall président de la république di ko xamal ne ko bég rek lañ def ndax vraiment seen ñëw bi rafet na mat na ni ñu ko waxee yàgg nañ koo def depuis ñu tàmbalee bale Touba ñu daje bokk ànd ak état yi ak gouvernement yi ni ko sëriñ bi di santaane ni ko sëriñ bi di bëggee taalibe bi yëpp di taxaw di setal dëkk bi balaa màggal Tuuba loolu mën nañ ko wax ndax programme mu set seetalu màggal seetal dëkk bi balaa màggal Tuuba ñëw biñ njëkkee joxee ndigal loolu Alaaji Baara waxoon Sëriñ Muntaxa Sëriñ Muntaxa ci loolu la ko jàppee loolu la koy dunde ba na gën waaye li ma bëgg a wax mooy seetal googu Tuuba waxtu bu nekk ñu ngi jigéen ñi dëkk ci dëkk bi alxames ci ngoon bu nekk boo génn dëkk bi ñu gis ñu seetal waaye li bëgg jot fii mooy cantu UGC jaarale ko ci seen kilifa monsieur Mastiam mi taxaw UGC ñu ngi yokk seen góor góor lu baax ci dëkk bi noo ko dëkk bi te mbirum set li yitteel ma lool ndax ñu ma ko liggéeyloo waaye dama gis ni ñuy liggéeyee ñi ngi yokk seen bagage dëkk ci ne ci dëkk bi ngir liggéey mën a yo yaatu ñi ngi yokk personnel yi personnel bi gis naa ne ñaar seetlu naa ko ci lu ma yitteel la ñuy liggéey ba bëccëg di liggéey guddi biir màggalu Touba ñuy liggéey ba continuer même bisu màggalu Touba dañuy liggéey bëccëg liggéey guddi te loolu dama ko gisoon Makka ma ne fii Sénégal war na fee àgg dafa am dëkk yi dañoo war a seet waxtu wu nekk ginnaaw ca Makka amaakinul muqaddasa lañ ko tuddee barab yu sel fii ji Touba itam dafa bokk ci barab yu sell yooyu kon dafa war di sell di set ci saayir di war di set ci baatin kon loolu noonu dañu war di teg loolu waaye kon ma gis ne UGC ñi ngi cee def lañ man lépp kon faaw ma jant leen jant googu jaarale ko seen kilifa mu jàll ko ministre ba ko ci président door a sant nag ci yoonu tey bi ak matériel bi ñu indi tey naka jekk matériel bari lañu fa daan andi dañ seen yéene ci Touba wane seen yéene ci màggal ba daan andi matériel bari wante tey liñ fi andi ëpp na lool daal ñëw double na ko triple na ko wala ëpp na lool te gis naan ko loolu dafa dal sunu xel sedd sunu xol ndax nun liggéey bii dafa ñoo yitteel ba nga xam ne lépp lu koy yombal lépp lu koy gaawal lépp lu koy rafetal rek moo ci suñu yitte ku ñu jàppale ci yooyu nag dañuy gëm ne jàppale nga ñu ci la ñu gën a yitteel waaye jàppale googu Serigne Touba nga ko defal Serigne loolu la ñu gëkk santé monsieur Massiam te yàlla sëñ sëñ mu taxaar yo waxtu nag yàlla fay jëf ba noppi door yéene loolu bu ñu koy wax mooy nit ki day def lu man lépp ba noppi yéene lu ko ëpp te monsieur Massiam mi ngi may wax yéeneem ci Touba ci wàllu set loo xam ne romb na fii ñu taxaw kon dañ koy fay li ñu ci defagoon te la yéene ci kanam it yàlla da koy fay ba bañ koy def bañ koy defee fay googu day jàll loolu rek lañuy dañ ci am lu ñuy tënk di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye di gën a santaan nag monsieur Martial mi nga xam dee sama xarit démb ci liggéey bi sawar na ci ñëw fekk ma fi may sawar naa ci moom mu fekk ma fi ndax dañ koo seq gis nañ yitteem gis nañ yéeneem ci liggéey bi yàlla na ko yàlla jàppale moom li mu ci yéene man ko kilifaam yooyu yàlla jàppale leen ministère ba président ba kenn ku ne la nga yéene ci réew leen nga def loolu moom at mu nekk bu ñuy balee danañ koy waxaale xëy na yaar moom mook doomu aadama ànd doomu aadama day fàtte doomu aadama it moo and ak taqal waaye ñi ngi koy gën a dénkaane waat am na at moo xam ne dama ci waxtaane sama benn xarit Basiru Abdou Khoudous am na déclaration bu ñu waxoon bu ñu defoon dañoo waxoon ni ku ñëw na nga fexe ba jëndu mbuus moo xam ne loo naara a taqal na nga ko def ci mbuus ma boo noppee boo ñibbi fas mbuus ma yóbbaale ko ba foo ko yóbbu waaye loolu dañoo mujjoon gis ne boobaay dañuy jëlee mbalit mi fii teg ko fii ci wet gi rek nañ koy def ci poubelle yi nañ koy def ci barab yi nga xam ne day yomb jël yóbbu ko ca décharge yi nga xam ne mbalit ko tax a jóg day gën a yombal lépp jërëjëf